pare na ñu xool vidéo bi dellu si léegi léegi ci plateau bi. aywa def baa ngi noonu ah, gis nga liñ ko bindal. Euh, dañ ko tàggee sànq ci ngoon dañ ko tàggee <laughs> mu nekk loo xamante ne aussi. Sénégalais aussi il ñu arrêter quoi. Sénégalais aussi il faut ñu arrêter. mais il faut euh, <laughs> bi nga gisee vidéo bi nii nga jot appel yi. nit ñi commencé woote ban réaction nga ko wax euh, hmm? Tafanaar benn jàngkat Tafanaar Tafanaar bokkul Tafanaar dibiteri Tafanaar bi ànd ak Balla Gaye ok jàngkat moo ma woo wax ma ni ma yow yaa ngi ci jàmm ma ne ko maa ngi ci jàmm mu ne ma wuyul Maawo Cissé Maawo Cissé bu TFM Maawo ni ma Maawo ni ma ah ñun kat dañ jaaxle léegi-léegi dañ toog gis si TikTok bi xaw ma la ma ne ko man de yëguma ko mhm. Maawo ni ma xaaral ma envoyé la ko envoyé ma ko hmm. même une minute après Ndiolé Tall woo ma mhm. Ndiolé Jamanois une minute de passage wax waaw wax ma ko mhm. après sama téléphone bi nag ku ndeysaan ku nekk di ma woo ay nit di ma woo di jooy. benn bi Petit laa jox sax ni ko répondre Petit Dieye laa mu jox sama téléphone. ni ko wuyu wuyu nit ñi Petit Dieye ni ma dellu wuyu parce que boo wuyulee. dañuy yaakaar dëgg la dañuy yaakaar lu ne mm-hmm. euh, naa ko. Mm-hmm. Ah, ci xol bu sedd guy. Mm-hmm. waaye bu xamoon man maay kan. mais da nga xam kan la. non xaw <laughs> ma dama ko wax xamoo kan la amoon njortu sax ne. jëlal ki ci ligne bi ba pare. d'accord <laughs> dégg nga dégg. <laughs> baax waaw fu ñu nekkoon euh, ci ci ci ci. ci vidéo vidéo ah. bi kan moo ko def. Mm-hmm. if xaw ma ko parce que man nii ngeen ko yëgee nii laa ko yëgee mais mu nekk loo xamante ne nii jombul kenn nag. musul am ak kenn problème ci jamono yi ci ginnaaw nii. ay détails wala nit koo xamante ne. envoyé na la message di la menacé. Mm-hmm. wala di la di la sànni ay trac. man sànni trac ci laa dëkk dama ko mis dama dem ba dama koo jalis moom. Mm-hmm. sànni trac dama ko jalis. man damay dajeeg nit ci xew sax mu may sànni trac man dajeeg nit ci mbedd sax mu may sànni trac mm-hmm. mais yooyu yëpp frégeew ma man mm-hmm. gawuma yooyu man mm-hmm. l' li ma war a def maa ngi koy def l' kenn du ma dab ni ma nii ndax mat naa mat googu mais baal naa ko ci xol bu sedd guy waaye koo xamul fu ñu ko juree xamoon nu ko ndeyam ak baayam bootee mhm. defe naa ni yéene ko jàmm moo gën d'accord yéene ko musul am ak kenn problème ci jamono yi ci ginnaaw nii ay détails wala nit koo xamante ne envoyé na la message di la menacé mhm. wala di la di la sànni ay trac man sànni trac ci laa dëkk dama ko mis dama dem ba dama ko jalis moom mhm. sànni trac dama ko jalis man damay dajeeg nit ci xew sax mu may sànni trac man dajeeg nit ci mbedd sax mu may sànni trac mm-hmm. mais yooyu yëpp frégeew ma man mm-hmm. gawuma yooyu man mm-hmm. l' li ma war a def maa ngi koy def l' kenn du ma dab ni ma nii ndax mat naa mat koo mais baal naa ko ci xol bu sedd guy waaye koo xamul fu ñu ko juree xamoon nu ko ndeyam ak bàyyi bootee defe naa ni yéene ko jàmm moo gën d'accord yéene ko jàmm alors ñu ngi koy nuyu waaw ah, sama patron boobu